li ci yéenekaay yi ñu xëyandool ñu àndi ceek Mamadou Mohamed Ndiaye jërë ngeen jëf fa yéenekaay yi ñu xëyandool ñett ngi ci yoo xam ne tey xëy nañu tooy xepp ci ndox mi mu di le quotidien l'observateur ak soleil national dooree ko journal le quotidien mi ñu xëy xamal ne coow li fi woon jëmoon ci contrat d'affermage bi ñu joxoon entreprise bii di Suez ngir dénk ko séddaleem ndox mi ci réew mi contrat ba far na tàbbi géej ARMP di autorité de mësta xëy laal ci ndox mi ubbil journal bi yéene kaay groupe Futurs Médias bi ci xalima ak Njaga Njaay mi ngi ñuy leeralal fa ARMP autorité de régulation des marchés publics jóggi ba annulé marché bi bi ñu ko càmbaree ak it jëfi yokku njuur yi ñu ci gis ñu gis ba tey ci xët mu njëkk soleil national mbiru ndox mi waaye ci weneen wàll ngir bëgg askanu senegal mën a amee ndox mu doy ndox mu set ndox mu sell ndox mu doy journal bi nee nañu moo waral ba ñoo ngi tabax yeneen juróom-benni forage bi mu di ma dikk moom la Vox Populi xëye yéenekaay bi nañu da doon gise démb ak jigéen ñi ko doon jàppal tànk ci wote présidentiel yi àndoon ak moom ci coalition ma dikke 2019 ma dikke ñang ca ndaje ma fa la waxee ne ñi doon yàq sama der ak doon ma sosal ak di waxal lu amul ñoom ñépp baal naa leen Vox Populi nañu maître ma dikke ñang teg na ci ne tey buy élection amaatoon ci réew mi moom pare na ngir soobu ci dañu koy gagné ki gagné di Macky Sall kenn ci aw ñoñom mu di El Hadji Dia responsable APR ca Bambey mi ngi wax ak nit ak di leeral ci direct info li tax ba président ma ci sàll Sall gagné Bambey ci élection yi El Hadji Dia ne waa Bambey dañoo xam ne ku la jox ndekki jox la añ bu la diggee ab reer nga war koo gëm président Macky Sall ak li mu liggéeyal askanu Sénégal moo waral waa Bambey am ci moom ak kóolute liggéey na fi lu ci mel ni PUDC gis di Sénégal émergent bourse familiale yi piste de production yu bari yi mu tabax ci réew mi ak yeneeni réalisation élage ja ne moom dafa masa nangoo doon doomi Bambey moo tax lu mu bëgg ca dëkk ba da koy yomb njëgu Bambey nag wala fi nee nañu tuut te teew moo tax mu jàpp ne élection yi ñu jëm mu di élection locale yi dañu koy gagné ci lu amul benn werante ndax président Macky Sall ab liggéeyam ci réew mi xool gis la lambu daj la lu mu nekk askan yu fekk si ko ci fekk leen ma ci la tribune soleil national l'observateur les échos réew mi quotidien source a direct info ba ci le quotidien ñoom ñëpp ñoo ngi ci bëccëgub tey bi ñu jagleel jigéen ñi mu di journée internationale de la femme la talaatay ndeer la xëyee source a xëyee jigéen ñoo xam ne li ñu nekk di ca liggéey ñaari góor ñi la ci daan gis ku ci mel ne Anna Sémou Faye capitaine Mame Rokhaya Lo ministre Maïmouna Ndoye Seck ak Abi mi jigéen ji njëkk a doon policier ci mim réew soleil national xëy jël page septam huitam ba dix dawal avion ci Sénégal l'observateur mel ne ku naan leen du ngeen ma ko dàq bu sub tay bi du 8 mars journée internationale de la femme yéenekaay bi mi ngi ñuy wax jigéen ñi réew mekk seen engagement ci wàllu politique politique kat yi doon campagne fan yi ñu génn journaliste yu jigéen yi leen toppoon doon couvrir seenu campagne am na ñenn ci ñoom ñu yéenekaay bi dajeel ñoo ngi nittali nañu dundee campagne ba bokk na ci Awa bu RFM Awa Faye bu Seneweb Aji Moussa Diop bu journal Source ba ci ma jigéen Samb bu Set TV Jaw Mbooc bu Direct Info moom la journal Direct Info xëy guddi ñu toll moom rek mooy jigéen ji doon directeur de publication journal ci Sénégal Aboubacry Kane mi xëy di sargalaka taggaka bàkkaka kañaka màggal Jaw Mbooc mi ngi ñuy junj ci xët yéenekaay bi lan na ci ay jaar-jaaram jamonoy journal le matin ba direct info jamonoy rubrique entre femmes ba ci directeur de publication jamonoy rubrique entre femmes ba ci directeur de publication lépp a ci journal bi jigéen ju góor ñu bari te xaaru fi bésub jigéenu tey bi 18 mars l'observateur xëy na ko jox wàllam ba mu mat sëkk ubbil yéenekaay bi Marianne Siva Diop ma newoon ca TFM te faatu bu yàggul moom la Marianne Siva Diop borom al mominina l'observateur wax nañu lu bari ci moom wax ko ba xamatul lu mu koy wax mu far ni ko au xarfin